te ñun euh, wax dëgg yàlla je suis employé du King Fahd Palace depuis l'ouverture de l'ouverture de l'hôtel en 1991 Et euh, je pense que ne j'en fais partie des doyens de l'hôtel j'ai fait 30 ans de euh, d'expérience mine de rien mais le problème qui se pose mooy hôtel ba dañ fa nekk ubbi ko jël fa sunu ndaw jaay fa sunu doole jox fa sunu xam-xam jëlee fa expérience lu jeex si tubaab yi wax dëgg yàlla mais le moment qui qui bi ñuy sénégaliser poste bi Abdoulaye Wade jël ko teg su loxo Mamadou PDG Mamadou Racine Sy Mamadou Racine Sy bi mu ñëwee aussi daf ñu gëmloo loo xam ne ndekete dara amu ci lépp forage ndax daf ñu gëmloo ne ne maanaam tey ji li Abdoulaye Wade jëlee tubaab bi fii ba sénégaliser poste bi jox ma ko teg ko sama loxo pour nga am clé à main man cinq ans yi ñuy waxoon tubaab bi waxoon dafa ëpp si man dama koy def trois ans trois ans ku nekk jot clamé ndax xaalis bi léegi génnatul te l'hôtel fait de l'argent ay chiffre d'affaires ay milliards la ñuy def. kan moo leen daax Racine si Racine Sy moo ñu moo ñu licencié dugal fa ay nitam maanaam ay ay homme politique am jëlee ay Podor n'importe n'importe où ñëw andi leen ñoo xam ne ils sont pas qualifiés ils sont pas des hôteliers bi ñu ñëwee xamuñ sax luy hôtel politiquement lañ leen fa andee. jël leen ñu di leen jàngal mokkalu ko ñu sax Covid bi ñëw ils s'en profitent maanaam defoon liste rouge am maanaam ñii ils sont pas de Macky ils sont pas de APR liste rouge ñii waa synthèse la ñu liste rouge parce que ils sont avec Véro notre secrétaire général yaa may dégg léegi nag problème bi qui se pose mooy Ablaye Wade bi mu fiy jëlee tubaab bi maanaam pour ñu am clé à main moo tax mu jël fi tubaab bi parce que dafa waxoon na tubaab ba tubaab bi d'accord am benn akki tubaab bi dugal chaque fin de de millions pour léegi ñun ñu mën a am clé en main ndax bu nekk war na am kër léegi bi Abdoulaye Wade defee loolu tubaab bi def loolu bi ñu ñëwee dem ba si biir ñu gis ne tubaab bi am na leneen loo xam ne dañ ko koy daf ñu ko war a defal defaluñu ko bi ñu defee suñu crédit que Abdoulaye Wade ne léegi daf koy sénégaliser jox ko Racine Sy pour mu taxaw si loolu ñu am clé en main Racine Sy bi ñu ñëwee tam loolu ñu gëmloo ñu gëmloo loolu aussi ñun tamit ñu ne comme sénégalais lañu moom sénégalais la gëmloo lañ loo xam ne sénégalais suñu bokk sénégalais moo ñu ko gëmloo ñu gëm ko wala applaudi ñu ñëpp ko tàccu li ñëpp ko tàccu daan ne kon léegi dërëm bi génnatul gaal mu ne léegi xaalis bi dematul fenn génnatul ndax oto bi doon def chiffre d'affaires ay milliards bay bay fay méridien Paris. mais par contrat dafa la woon contrat ginnaaw 91 ba léegi yaa ngi fay liggéey mu xëy rek envoyé le message ne da leen dàq. on est embauché on est embauché a payé un contrat de un an en 91 renouvelé deux ans troisième année on a embauché en 93 on a de contrat de troisième année on d'office depuis 91 ñu ngi fa on a fait 30 ans bi muy ñuy licencié tamit di ko jaay par euh, licenciement économique daf ko jàpp par règlement de contre c'est l'histoire parce que Racine Sy ne me connaît pas man en tant que son employé il ne ma connaît même pas xaw ma kon nag waa direction ñi mu tegal ñu suuf ñu nekkal ko si naaj bi ñooñu ñoo ko doon defal liste rouge waa direction ressources humaines ressources humaines ñoo ko doon defal liste rouge yaa may dégg di ko ne ñii bokku ñàkk euh, ànduna ak yow ñii véro la ñuy àndal synthèse la àndal ñii APR waxuñu si moom dara ñii dañoo contre APR mais moom tamit au retour yooyu la gëm loo mag yi depuis le Covid oh, juste le def naa un de chômage technique un an de chômage technique man a samay collègues après les un an mu seppi 76 personnes et j'en fais partie licencié après les après les pères de famille et les de famille man bi may licencié ñu yónnee SMS c'est un vendredi SMS bi mu jógee coow li jëpp dañoo dagg SMS arrêté ko mais ñun ñëpp SMS lañ leen yónnee mais bi ñu yónnee quelques-uns ba coow li jóg secrétaire général ko bi coow li nag ñoom ñu daw daw daw xam ne li ñu def nii dañoo violer loi bi c'est illégal ñu daw dellu ginnaaw Pierre Mbow directeur d'exploitation bi taxaw di weddi devant la presse naan y a pas de SMS man sama SMS mi ngi woon ci man sama SMS mi ngi woon ci man ba léegi sama SMS mi ngi si man mais loolu ñu def noonu tey jii def ma ko un vendredi saint ma toog ànd ak sama ngëm yàlla le samedi ma yee sama jabar exposé ko problème bi mu commencé publicité ma ne ko non àndal ak ngëm yàlla man am naa métier peut-être mu amu woon métier mu metti mais man am naa métier je suis chef de cuisine je suis chef de parti maîtriser li may def am si expérience tey jii looloo ma dimbali ma di ko exercer feneen di def sama sama business bopp mais bu dul loolu kon parmi sama collègues yi si jot a dee man damay bokk si ñi si dee ndax tey man yàlla dimbali ma ne léewu ma. président Bessy ma moom moom Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy interpellé di interpellé son premier ministre euh, Ousmane Sonko ministre du tourisme ministre du travail ñu ngi leen di interpellé ndax je sais que ne. ñëw nañu avec le remords parce que euh, Ousmane Sonko en tant que ministre en tant que député bu mu nekkoon exposé na le problème di King Fahd Palace biir assemblée nationale ma dégg ko à la télé. Guy Marius Sagna ñu ngi koy remercier de passage ndax moom sonn na maanaam moom le député du peuple wax dëgg yàlla euh, kàddu askan bi wax dëgg yàlla mi ngi koy doxal mu waree ndax mi ngi wax ak ak yelleefu doomu aadama yi haut et fort. am na lettre boo xam ne moom en tant que euh, député Guy Marius Sagna bind na ko gouvernement si maanaam suñu problème King Fahd Palace bind na ko bind ko bu bindi ko les problèmes des licenciés les mères de famille et les pères de famille ngi ñaan nag monsieur Diomaye Faye mu taxaw ci nu mu gën a gaawee ñu auditer otel bi parce que y avait des milliards yu Macky Sall la joxe woon pour ñu bañ a te moom du Racine Sy l'a fait parce que lu mu gëmloo Macky ne ko ñii bëgg ñu troisième mandat depuis boobu ba léegi bi Covid bi ñëwee ba léegi ci la ñu lis euh, Racine Sy licencié muy juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñu fa doon liggéey ñii def nañ fanweeri ak ñii def nañ ñaar fukk at juróom ñi fa néew daal ñaar fukk def mu dàq ñu. boobu nag bi nga xamee Covid bi am na président de la république Macky Sall joxoon na ko ndàmpaay na ko léegi dafa bañ pour mu dàq kenn moom xam nañu jot na xaalis bi waaye teewul def na dàq na mu ñu dàq nag amul fu ñu demul woote ndimbal. wax ko na ko léegi moom lañ ko waxoon respecté wu ko amul fu ñu demul nag foo xalaat ci Sénégal dem nañ dem nañ gis ci président assemblée Moustapha Niasse dem gis ci au euh, dialogue conseil national madame Innocence Ntap dem nañ gis ci ma Aminata Madiaye moom nekk euh, euh, territorial conseil économique et sociale dem médiateur de la République ndeysaan dem ci yàlla ci ba Badara Cissé amul fu ñu demul pour wax leen suñu jooy métit jóge fa dem ci kilifa diine yi sëñ Mountakha Mbacké dem na fi ñu ñu defoon délégation dem fa dem kër Serigne kër Sy Mansour dem ci archevêque dakaar amul fu ñu demul jooy suñu méttit 2020 ba léegi te Covid bi ba léegi waaw boobu ba léegi ci la ñu dàq ba léegi ñu ngi toog ndax balaa mu ñuy def fa njëkk a wàññi suñu salaire daf ko xaaju salaire dañu fay dañu fay ba yàgg mu xëy suba daal dañuy dàq par message SMS ajjuma julli ji ba ñëw rek nga ku nekk xool sa message woo sa morom ne waa li may gis gis nga ko SMS lañ maa benn dàq nañ ma nii lañ ko defee depuis ba woon amul fu ñu demul nag fu ñu demul amul ba léegi dara te teewul léegi nag ma nga fay dugal ay nit ñoo xamante ne base politique am la ñii mu leen podoot ñii mu indi leen ci ñoo xamee amuñu benn formation amuñu benn qualification ñun ñi nga xam bari ci ñoo xamante ne école hôtelière lañ génne ñiy def seen formation technique am seen i diplôme ñëw fa mu teg leen fa la jël ñoo xamante ni xamuñu sax nu ñuy téye paaka ñëm leen fu indee sax ñoo leen di jàngal ah. mu mu mu indi fa ñooñu de génn ñun ñi nga xamante ne def nañ fa ay fanweeri fanweeri at man mi di waxee fanweeri at laa fa def ñi fi nekk ñëpp ci këndal si ñaar fukki at dafa fa def mu génn ci bi dugal ñooñu boobu ba léegi nag ñi ngi xaar léegi nag ñi bees ñëw ñi ngi am yaakaar ci ñoom di leen wax nag moo tax ñu woote nii def suñu cri kër ñu xam ñu dégguñu xam ne sonn nañ ñu dimbali ñu ci ñu delloo ñu suñu aqaf suñu yelleef loolu leen wax mbiru King Fahd Palace buñ koy wax fii la ñuy fanaan Covid bi ba mu jotee la waa ji licencié 67 père de famille mère de famille waaw ñii dee ci ñii feebar ci man mii di wax ak yow sama sëy tas na sama deuxième femme billaahi wallaahi ñu dàq ma location location dañ ma ci génnee sama sëy tas ci sama deuxième femme affaire bi metti trop te grand nañ wax waxante suñu diggante ak yàlla Sénégal c'est pas pour promoteur yi xam nga neexul ba neexul ñoom bu ñu yaakaaree ne ñoom moom senegal moomuñu ko senegal kin faat dañoo demoon ba affaire bi nekk moomeelu Macky Sall moomeelu Macky Sall la nekkoon yow tey jii boo boo àndul ak boo àndul waa APR doo liggéey ci hôtel bi 67 67 et 76 père de famille mère de famille ñu licencié leen muy loo xamante ne lu metti lu tar grand mu dund ko. des fois damay toog pour ma fay location c'est un problème ba tey jii may wax ak yow liggéeyu fu ma déposé ñu ne ma non say dossier ñëw mënuñu la jël parce que sa salaire mënuñu ko billaahi wallahi ay dossier kin faat fu ma ko déposé ba tey jii ma lay wax ni damay xëy di taxale woowaatuñu te affaire bi Covid bi état bi daka suspensionné jox na ko xaalis ne ko bul dàq employé téye leen te waxoon na bu Covid bi jeexee dañuy reprendre ba tey jii ba di jël ay nitam di am embauché ay nitam di jël ay boy yu jóge ci àll bi mu leen di dugal dafa bëgg a dem ba nekk ci dëkk bi affaire ethnie te bu ñun ñun soxlawuñu ethnie ñun liggéey moo ñu fa yóbbu ñun ñëpp benn lañu amul tukurool amul séeréer amul bambara ñëpp benn lañu Sénégal Sénégal la mais dañoo dem ba indi otel bi affaire ethnie te loolu du otel bi grand ñun ñëpp ay mag lañu man li ma lay wax nii ça me fait mal qu'une faat actuellement am na loo xamante ne neexul neexul ci dara. yow ngay dund di am salaire ñu xëy un bon jour envoyé la message SMS ma toog wax ko sama jabar sama jabar jigéen ju baax jigéen ju baax moo mun a toog tenir maa ngi sama aaw tey jii sama deuxième boobu nii laa divorcé ak moom. nii laa divorcé moom am pro xoolal sama deuxième bi nii laa divorcé moom am problème sal am problème fayum location di am ay arriéré ci location di am arriéré di am arriéré ba nii ma lay wax ak yow des fois damay wër di journalier ci entreprise yi. journalier bi ñu may journalier mënu ma ko journée 3000 grands sama añ bëggu ci sama ndekki sama paas. gouvernement bu bees bi ñu ngi koy ñaan yàlla kii di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ak ministre de tourisme ah ak ministre de ministre ministre de tourisme ak ministre du travail ni li am kin faat place ñu ngi ñaan di leen ñaan. sukk nañu suñu oom di leen ñaan pour ñu wax ci nu mu ci gën a gaawee parce que ay père de famille mère de famille ñu nga ciy dee waaw maa ngi leen di remercier bu baax di leen gërëm merci beaucoup.